وتكون الجبال كالأهل المنفوس فأما من سكلت موازينه فأما من خفت موازينه فأمه واوية فأمه في عيشة راضية فهو في عيشة bahwa fi isatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu wawiyah kama adura kama iya narul qamiyah sadahallahul azim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 تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة سرا يره صدق الله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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم ما شاء الله تكبير تكبير su ko defee ñu jox oustaz rek mu leeralal ñu tuuti ci saar boobu nga xam ne moom la xale bi doon tari ñu continuer incha allah. daa amul dañuy sant Touré ak Mbaye. dañuy bëgg nga tënkal leen ko mu gaaw te loolu moo ñuy gënal yàlla nee na ñëpp perte nañ ba des ñaar yàlla nee na ñun ñëpp dañoo perte ba des ñaar kon yaakaar naa ni ñaar yooyu moom ngeen di diglu moo ko wala déet moo ñaar ñi pertul yàlla nee na ñëpp perte nañ ba mu des ñaar moo leen ko wala ma bàyyi moo leen ko wala ma bàyyi yàlla nee na ñëpp perte nañ ba mu des ñi nga xamante ni bii dañoo gëm yàlla di déggante lu baax waaye nag di muñ kon. yaakaar naa ni ñooñ ñooy ñu seetul képp koo xamante ni bi ndax mboolem jaamu yàlla yi muñ da ciy dugg bala ma koo xam nga doon seetaan mars euh, benn mars daal am rek nga doon seetaan Real xam naa nag Real laa cité xam naa ni ñi faral Barça ma mere waaye nañ ma baal ngay seetaan mars Real bañ nga du timis ñu mën a Real soo muñul dëgg-dëgg doo dem julli soo mu sax danga naan xaaral ma xaar occasion bi jàll occasion bi jàll ba waa jàkka ji asalaamaaleykum kon loolu même jaamu digal muñ ci li la yàlla tere waaye muñ ci li yàlla dogal ci yow asabru ala taatillah asabru ala maxaarimillah waaye asabru ala aqdarillah ñett yooyu yaakaar naa sama àlli woon ak daa soriwul moo tax borom xam-xam yi su ma juumee rek ñu jéggal ma ko kon muñ ñett yooyu la muñ ci li la yàlla digal waaye muñ bàyyi ci li la yàlla tere lépp lu la yàlla tere nga bàyyi ko waaye tamit li yàlla dogal ci yow nga nangu ko comme le góor yàlla nga waxoon ni kullama xadara rahmanu jadiru lépp lu yàlla dogal ci man rek nangu naa ko yey na yey na benn nettal rek laa ciy nettali benn góor bu mag bu wax Serigne Ibrahim Seck ca Canaba Seck yaakaar naa drapeau Sénégal bii ginnaaw yàlla su amee biddiw bañ man koo mandargale ni réewu jullit la moom mooy ki ko liggéey ba am kon kooku jar na xam ko doomam ko tuddoon sëriñ Alfarama Seck bi mu génnee àdduna nga xam ni nit toll foofu ak maqaama yi muy commencé am ak yaakaar yi ngay commencé def ci moom yàlla moom. bi ko yàlla moomee ñu def ko ci digg jumaa yi jarama Seck pour julleeku ñëpp jaaxle jàpp ni tey moom sëñ bi dina gërëm ndax sëñ Alfarama fi mu toll woon ndeysaan ak fi mu ko toll woon ak mébét yi mu amoon ci moom. bañ ko tegee li mu ko seedeel li mu wax mooy daf ni kii day. sëñ Alpha mii tëdd day bis ba ma ko yàlla joxee ma koy tëdd ma koy tudd ak bis bi ko yàlla jëlee ma koy jox boromam moo yem ci man wax boobu la wax pare loolu nag tolluwaay la kon kooku gëm na dogal yàlla kon kooku moom waxu waxu wax na inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye dund na inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon wax inna lillahi wa inna am na solo waaye dund ko nag moo ko solo kon yàlla nee na ñii ñoo perte ma fàttaliwaat ko ñoom mi doon nelaw yàlla nee na ñépp bet nañ ba mu des yàlla di dénkante muñ ak di dégg dénkante dëgg dénkante dëgg nag borom xam ne mooy képp koo xamante ne bii da gis lu baax nga digle ko soo gisee lu bon nga tere ko kon loolu rek moom la ñuy tënk ci loolu kon oustaz kan moo ci topp ah macha allah oustaz euh, macha allah oustaz euh, leeram yi am na solo euh, macha allah kon damay wax rek ne daana ko kon est-ce que ñun sax bokkuñ ci ñi ndax lu jafe-jafe mooy muñ muñ ak dénk te dëgg dafa jafe ci jamono ji waaye nag yàlla nañ ci yàlla boole euh, ñu ba tey di xale bu ni wax Abdourahman Gadio di doom ci Baba Gaajo ak Soxna Oustaz def ni naa taxawaat bu baax gërëm ñi nga xamante ne bi lu ñor ñoo ko togg lu set ñoo ko fóot lu dal ñoo ko paase ku sonnoon ñoo la dalal ñoo ñan la sax ñan la loolu góor ñi ah kon yéen a ko waxoon seen bopp mu gërëm ak jigéen ñi bu baax a baax a baax ndax benn mag ca Canaba Seck ngeen baal ma man moom ginnaaw yàlla ak yonent bi si weesoo waxi borom xam-xam yi damay jël Canaba ndax moom laa gën a xam waaw su ginnaaw yàlla ak yonent bi si weesoo la waajo waxoon ni ginnaaw yàlla hum rijaalun wa nahnu rijaal ginnaaw yàlla damay jël exemple ci Canaba benn mag bu baax day wax ñëpp xam nañu maa amari daal dafa demoon jihaad yi samp Canaba da doon wax ni jihaad jooju si dekki jigéen ñi laa koy jox waaye du ma ko jox góor kon loolu li muy <laughs> li muy firi mooy jigéen ñi ñoo gën a jàmbaar jàmm xale yi sax ñoo ci gën a sonn suñu fekkee réunion daa am ñoom ñooy ñëw visite sax su amee su fekkee ci internat yi la ñooy ñëw su conférence ñi jotee soo amul sax dinañ jël seen place ba mu mu wàccee bu góor ñi ñoom ñoo koy mujj jëlaat ba pare boole bi joxe seen alal kon ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di waaye nag islam loola baaxoo woon ndax ki njëkk a gëm yonente alayhi salaatu wasalaam jigéen la woon te mooy yaay Xadija ki njëkk a jëmbat deretam di islam jigéen la woon te mooy yaay Sumayya kon su ngeen defee loolu wat na wateet wala yal na yàlla fay leen dëggal leen a sàmm oustaz ki taxaw mooy kat ki taxaw mooy Abdourahman Gadio kon nga nuyoo bismillah Abdourahman salaamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah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 ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم ما شاء الله تكبير تكبير ما شاء الله القرآن وأنا ما سأني ما قبل ما صار بيجون جانغ وما تصير بره وتحا بيجون جانغ suñu paree dañuy dugal way boo xam ni suñu sangu ñun ñëpp moom lañ ci way mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax doy na rek yàlla ni ko ci saar bi doon xale bi jàng ëllëg yowmal qiyaam suñu demee yàlla da lay jox naan la rambal rambal ba nga doyal wala sawfa yutika rabbuka fatarda daa mel nag aaya boobu la Oustaz Mouhamed dégg ba mu yóbbu ko ci xaal ba mu ni su paree day way ci yonent bi waaye suñu paree dinañu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 فاجي البصر فلترى فاجي البصر فلترى من فطور ثم جي البصر كرتين يلغي إليك البصر خاسعا وهو الحسين صدق الله العظيم صدق الله صدق الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا ¡Ya son,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 Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu birabbin nas, malikin nas,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 فأهلكوا بريح صرصر عاتية سحرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام خصوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية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 طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا عليهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتى نودي يا موسى صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته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 أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر العاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام خصومة فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء همناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وسعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وقملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة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 لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عزامه فلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البشر وعزف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر صدق الله العظيم صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasin hamnas allazina waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahu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 ألم تر كيف فعل ربك بهاد إرم ذات العماد التي لم يهلك مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السهر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تهوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب صدق الله العظيم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 نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إيه. وأنه كانت لأنه كان يقول سفهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا صدق الله العظيم صدق الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته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 نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقون لكاذبون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل أمر الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العظيم نمان دل جيته أمي نون لمان دل جيته أمي وعلامات الشهير إحدى عشر خصة benn juróom fukk la ak benn an yakuna xalisan ala jamil maal nga nekk ku xër ci dajale alal ñaareel bi mooy an takuna nu himmatuhu fi shahuri wala zaati fi dunia mu nekk yitteem bànneexu àdduna ñetteel bi mooy an yakuna fahishan mitsaaran nga nekk ku defkatu ñaawteef te dëkk si ñeenteel bi mooy an yakuna mutahawinan fi salawaat nga nekk ku néewal julli juróom an yakuna akluhu min alxaraami wa shubhaat wa saxbatuhu man fujjaar mu nekk sa lekk lu xaraam wala lu lëm te ñu bon rek ngay àndal an yakuna siiwul xulux nga nekk ku ñaaw jikko an yakuna muxtaalan mutakabbiran faxuuran nga nekk ku mën a wanewu mën a réeréeru te mën a puukarewu an yammahu manfaatuhu alin nas koo xam ne njëriñam da koo tere ñi an yakuna xalilu rahmatin lil muslimin nga nekk ku am yërmande ci jullit ñi an yakuna baxilan nga nekk ku nay an yakuna nasiyan lil mawt nga nekk kuy fàtte dee asalaamaaleykum wa rahmatullah takbir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 النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك Allah Assalamualaikum warahmatullah. Amin.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 يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل مبتد أثيم صدق الله صدق الله العزيز السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته love. imam Serigne Mouhamadou Ba ak Ba ñu la alaykum wa rahmatullah الذين كفروا في قلوبهم الخمية خمية الجاهلية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وقالوا أحق بها وأغلقها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين لرؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أسداء على الكفار رغماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستولد فاستوى على سوقه يعجب الضرع وليغيظ بهم الكفار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 ba aljana bi Shamsu TV la ni bege ba aljana ay waay di ko bege waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bege ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bege ba aljana